Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sambok patriote ma ngi len di nuyu di len ziar wa di ñew di wax mambay ñaa lu gudd te bariwut nya mambay ñaa foo toj mambay ñaa foo toj mbay ñaa yaay kan mambay ñaa fal Macky Sall la falon wacc na yow it wacc nga ne nga nga ami jabar ami mbokk ami doom wa président Ousmane Sonko nak du fii nga taxaw lu ne nga waxal ko ko bay wax ay zakuzek yu kenn xamul te lépp ci ay fen la ay sos la yow dangaa gën président Ousmane Sonko bu gëneel dee am moo la gën ndax moom sàccul fenul yow nag ci sàcc ak fen ci nga doon dund di ci dundal sa jabar di ci dundal sa askan di ci dundal say doom nee na ñooy yaay euh, dossier Prodac yi kii nañ ko effacé nañ ko loolu génnewu la ci Mame Mbaye xam nga lu ñu doon xaar nga def passation de service ba pare te xam ne ñoo ngi ci sa kaw loo seen muy ñëw rek xamal ni président jomaay ak président Ousmane Sonko ñoo ngi ci sa kaw fii nga toog ñuy wax nga naan nañ ko teg ci dëgg te bàyyi parparloo parparloo xanaa ci yéen la fekk baax parparloo yéen ay ndeyam yéen ay baayam yéen ay maamam yéen ay bàjjanam yéen ay nijaayam te parparloo nag ci ay fen mambay ñaa nga wuyu de vingt-neuf milliards liir yee ci juddu woon ak moom sax léegi ñi ngiy doxaan te liir yooyu sax xamoon nañu dossier boobu nga bëgg fee ñëw tuur ñu lëndam ne yaay da ngay wax ba wër naxuloo kenn sa bopp ngay nax te ku la xool ak nii nga bufee funki di niroog bañ dugub xam ne yow amatuloo ay nelaw yow ci ay somnifère ngay dund. Naby Vision. ndax sa xel dalul boo tëddee doo nelaw. boo tëddee sa conscience du tranquille ndax xam nga li lay xaar mambay ñaa yàkkamte de ndax gis nga sàcc bu dul raw jarte yàq yi nelaw te mooy yow ñuy wax fii nga ne yaay deux cent million ngay laaj danga bëgg kër Ousmane Sonko bi waaw waaw ba jaay sax ku du cunwaar yi jaay nàngam yéene néeg la boroom a cay fanaan tey sa añ ñëw na tey sa bés ñëw na gis nga toroxtaange googu nga ko doon yéene boo sàgganul yow yaay torox ba ne tot yaay kii torox ba ne tot ndax yow alalu askan wi nga jël ni ko dëniix ngeen muucu suñu deret doyu leen ngeen ne léegi nag yaxu yuq bi ngeen di laaj moo tax sénégalais yi ànd nañu fulla ak fayda ak mature toon ni leen sànni leen ca sën wa te xaw ma ñan de waaye yéen moom xaw ma da di opposé wu xaw ma opposé wu leen waaye fii moom dootu leen fi am dara bu yeboon ngeen jéem a dëbbi ndox mbaa ngeen xaw ma nuñ koy waxatee lal basang jaay géej ak ak tuufa te xam ne yéen a fa dee yéen ngeen ba faaw te leen baax ba ilaa yow min basar wasalaam. maam Mbaye ñaa bul fontoo nit ñi wala asri yàlla moo wax ne mi ngi gin ci alxuraan. wala na lin saan yaa ngi doga fataliku ba makki Sall yore rew mi balance do ko indi fenn dem ba jaxle amatoo fo jëm nan wala ngasri yalla mo wax ma ngi ci sa kanam gi ko gis. fendi wut de sa kanam gi wute nak ba makki Sall yore rew mi kanam ga nga yoron de yaa ngi xalaat xalaat nga ba jeex waye dara gis nga lo muñ mu jeex wala asri ci. yaa ngi doo ko bàyyi xel wal asri kon wal asri ba wàccee ba nëgë ni mu wàccee ba nëgë ni <laughs> nga koy doog a fàttali ko tey dem ba jaaxle amatoo foo jëm nga naan wal asri dara dara du tee moom ñu teg la ci yoon adduna noonu la ñu ngeen a bari caaxaan nekk ci leen neex neex bu ngeen demee ba sonn amatu leen fu ngeen jëm ngeen doo doog a fàttaliku li yàlla wax <laughs> wal asri yàlla nee na mi ngi giñ ci alxuraan ne loolu dala ciy génnee hmm? ba nga ko xamee ba nag ni nangoo koo wax dem ba sonn jaaxle amatoo foo jëm ngay doog a wax wala asri sa kanam bii xam nga ne ku la gis xam ne li ngay xalaat de yaa ngi xalaat ba xalaat nga ba ràgg lekkatoo noonatoo suñ caaxaan yi ngeen di bàyyi wala asri yaa ngi doog a yaa ngi doog bàyyi xel wala asri ah, ba nga nekkee ci réew mi ba nag ni yaa ngi doog a bàyyi xel wala asri yàlla moo ne maa ngi giñ ci alxuraan ne <laughs> ci lu gataas lii rek dana am njàngat billaay wal kitab ah adna adna ku ko topp ku ko jàpp jàppoo ci dara xolal li tay ken waratu ko bu njëkk bu daan wax ni nit ñangi lu mat ay eh, téwéri ni da nga ci ginnam fess dal nan ko yaa fi ne ana ñooñu gisato ci ken ñepp daw na gis nga adna li mooy adna way nek ci lu la neex ah gis lo naqari rek fii la du jeex amul loo muñ mu jeex xool ma nga ni guddeeg bëccëg dañ ko pamte pamte di sonal lakkaramo seen i dàq nga ko daan sonal di ko ak di pamte pamte de tey ñooy dem taxaw buntu këram wala di fa fanaan ba fajar jot fu mu génn sécurité taxaw ci ba kenn ah xoolal loolu gis nga gis nga affaire yi ni mu tourne affaire yi Takulde la gisoo lay def taxul de lay def day wër tey moom moo may ban balance rek yow da ngaa bëri caaxaan waaye baax na ba mu sotti moom daal kenn mësu gis lu mel noonu gis ngeen maam bay ñaare mi ngi doog a ko balance rek de ba mu nekkee ci réew mi ba na génn naan balance bi yàlla moo ne maa gin ci alxuraan yaa ngi koy a la neex dem ba gisatoo dara lu mën a dimbale nga naan balance bi yàlla moo ne maa ngi gin ko moom. du gis ngeen Mame Mbaye Niang dossier Mame Mbaye liñ ci jàpp ci ay détenus politique liñ ci faat bakkan faatuñu ko bakkan ci dossier Adji Sarr Ousmane Sonko dossier Mame Mbaye Niang ñun liñ ci souffrir liñ ci subir amul benn projet Sonko bu ñu sévir léegi Mame moomul Niang démb moo taxaw jàkkaarloo ak ñun ni rapport am na booy nañ leen de pétition pétition laa bëgg ngeen def ko ñu lancer pétition képp kuy jeune ñu jàppoon na ci projet Mame dagg ci say cër sa doom dee ci nañ de pétition def plainte contre Mame bu ko Sonko toppul ñun dañuy top mambay ñaan ñun jeunesse su sénégal projet mambay ñaan lu ñun liñ ci dund ci aduna mus ko dund ci ben projet ousmane sonko ci metit ci jafe-jafe ci tegg atom ci ay jigen ci ay goor ay ndaw ñi exilé mambay ñaan am audace ñun jakkalo ñun ñukoy xol mu ñi xom mu ñu rapport amna non rapport amul Mame Mbaye Niang yow rapport du am Mame Mbaye Niang nga tee ñu dem élection tee ñu retirer suñu fichier Mame Mbaye Niang nga yàq suñu àddina Mame Mbaye Niang yow maa ngi lancé bépp sën ñu préparer des pétitions pour plainte Mame Mbaye lu ñu yoon may ñu jël te man alaikum, sama gaañ yi le vendredi 12 avril 2024 dès soit ak yéen ci benn vidéo bu vidéo, mu jëm ci ben, sujet d'actualité bi nga xam ne jot réewum Sénégal ci juróomeet yi nga xam ne génn nañ ci l'affaire Mbaye Niang mooy scandale vingt neuf milliards Prodac yi démb nag dégg nañ ki nga xam ne mooy ministre du trice bu réewum Sénégal di Mame Mbaye ba muy def passation de service ak kii nga xam ne moo ko wuute muy xamal askanu Sénégal ne euh, Cour des comptes am na rapport bi nga xam ne daka saa satal ba mu set wécc mooy maanaam cour des comptes dafa ragg deram bu fekkee ne li am na ak lii nga xam ne jot dañ ko dégg ci scandalu vingt neuf milliards yi nga xam ne Birahim Seck bu Forum Civil bind na ci livre kii di njiitu jëwri nii di Ousmane Sonko wax ci eh, yekk ci kàddu tuuma yi nga xam ne tax na ba procès doxoon ak diggante ak Mame Mbaye Niang ba ñu daan ko ci ñetti instance yépp bu fekkee ne rapport bii nga xam ne moom la Mame ñaa Niang di wax ne am na te dañ ko caa setal kon jaadu na ñëpp ñi nga xam ne dañoo yëkkatoon ay tuuma jëm ci Mame Mbaye Niang ñu yëkkatee kàddu njéggal jëmale ko ci moom. léegi nag laaj bi lenn la ndaxte ci réewum Sénégal dafa am ñi nga xam ne ñoom ñoo war a rendre compte ci lépp li nga xam ne ay ay looxoor la wala ay détournement de fonds la wala ay ay mbir la yi nga xam ne dañ koy def te mu nekk délit.

takkul tiinul loolu questionnement la ci man ndaxte dañoo wax ne ci entreprise wala ci ministère wala ci direction kii nga xam ne moo jiite direction bi wala kii nga xam ne moom mooy responsable bi normalement ab dage wala comptable balaa moo dekkee sa xaalis muy dugg fu mu munti dugg kii di responsable bërëb ba war naa saytu lii nga xam ne la ñuy dépensé lu toll ni vingt neuf milliards génn ci benn direction te kii nga xam ne nee nañ moom mooy kilifa direction bi yëgul tiinul xamul fi vingt neuf yi jaar kon jaaru na aussi ñu indiwaat askanu Sénégal wala Cour de comptes wala ñii nga xam ne ñooy IG wala IGF ñu wax xaalis bii nga xam ne moom lañ wax ne moom lañ tourné ci affaire vingt neuf milliards yi ñu wax kan moo ko jël ak ñan ñoo ko jël bu fekkee ne nee nañ dañoo setal deru Mame Mbaye Niang dañoo war a gindi askanu Sénégal ci vingt neuf milliards yooyu fan la jaar loolu mooy dëgg loolu mooy yoon ndaxte dama jàpp ne lépp loo gis rek am na ki nga xam ne moom moo war a rendre compte moo xam direction la moo xam euh, ministère la moo xam agence la moo xam lu mu mënti doon kilifa bu fa jiite moom mooy xaatim mooy maanaam lépp li nga xam ne dañ koy décaissé DH da koy décaissé wala comptable da koy décaissé da ko war a vérifier saytu ko ndaxte dafay engagé lu ñuy wax responsabilité am léegi nag comme que nee nañ du mambay ñaa te loolu balaa maa gëm ne du moom rapport bi dañ koy publier ba ñii nga xam ne ñoo yëkkati woon tuuma wax ne moom la wala du moom ndaxte moom wax na waaye ba léegi kenn gisul rapport bi te amoon na édité yi nga xam ne xaababal ci wala wax nañ ci lu bëree bëri depuis presque que 5 ans ñu gënne scandale bi nek na li nga xamné ne na vie publique sénégalaise bi donc nak bu fekkee né du mom nañ wax 29 milliards yooyu doon parce que du vingt neuf francs nañ wax ñan ñoko ko ñan ñoko jël. légui nak ñi nga xamné aussi ñoy yëkkatoon tuuma yi nañ fessel rapport bi askanu Sénégal jot ci parce que ñun ñëpp ay borom xel lañ on on est censé lire entre les lignes mooy maanaam. yalla may nañu li nga xam war nañ mëna comprendre ay mbir yu bëree bëri bëri bu ñu teunk réewum Sénégal ci benn scandale bi nga xam pendant presque lu mat 6 ans ñu ngi koy indi ci pench mi di ci wax di ci indi ciow lu bëree bëri bëri tay ñuy wax ñu ne Cour des comptes dafa sel ki di Mame Mbaye bu fekkee ne lolu amna ñi nga xam ñoko doon tuumal dañ yëkkatee kaddu njéegal wala ñu indi ci précision ay leeral li nga xam askanu Sénégal bi ku nekk mën nga ci def sa propre lecture wala nga am sa propre religion lé li nga xam aussi bëgg na ko wax bu fekkee ne Mame Mbaye Niang jëlul vingt neuf milliards yooyu nañ wax vingt neuf milliards yooyu fan la dugg ak ñan ñoo ko jël lii laa leen bëggoon bi seen xarit la woon Léon Baltasar le caméléon di leen ñaanal bi kanu moom Ousmane Sonko su ko baalee ma génn Pastef man du ma nekkati sympathisant du ma nekk partisan du ma nekkati dara Seydina Ousmane Sonko ci boppam laay mujjee bàyyi. lii rek moo mën a dindi sama diggante man moom dama ne image yi gën a ñaaw ci histoire politique bu Sénégal. Mame Mbaye Ousmane Sonko rapport amna rapport amul gender rapport bi mu wor la ni yow rapport amna na ngeen ne waxul deug suñu doom réew ñak ci seen bakkan ci ay fen ak i ñew yow nga ne amul benn rapport kenn mu gis fen rapport tay nga ñew taxaw di layam layam may sa kanam gu dis naan ñu rapport amna na rapport bi motax sayyidna Ousmane Sonko nekul candidat ci ay tappale yoyu lañ ko ba tey nekkul président yi ñun daal ñu ne lii dañ koo nar a fàtte nii rek yow dama ne la rapport su la seetalee sax yow poo kase yi moom di ko fay moom ndax su dul woon sa rapport bii suñuy doomu réew du ñu dee su dul woon bii du ñu gazé Seydina Ousmane Sonko toj ko euh, otoom sama rongañ ñi te génn rek faaw nga fay ma ko par force par la force ndax jour boobu damaa jooy ba xaw ma lu may ndulool Mame Mbaye Niang doo yow ku ñàkk jom nga yow ku ñàkk jom rey suñuy doomu réew ci dara ci ay ay ay ay fen ak i sos yow soo setee wut sax nañ la toppee leneen barke maam borom Touba te yow ni setoo yow ku la gis xamoo setoo sa kanam gu diis tey sama xol bi dafa jeex yow ah ñii xaw ma ay maam àll ko nga xam baaxul ci kër baaxul ci àll yow ah yow Ousmane Sonko dalaa ne rapport da laa nga war a dem setal sa bopp yóbbu foofu noonu ay preuve ñu xool wax yaa sàcc wala sàccoo nga ne rapport du ko génne na ci àdduna ndax amul ñu bind ci livre ak yépp ngeen taxaw suñu kanam di ñu fen nii ñun ñu wóor ñu ni da ngeen ñuy fen ñun ñu encaissé fen yi ndax yéen a nekkoon ci nguur tey ngay layam layam yow yow li nga fay de osaan yiñ fi taal nit ñi fi deew ak oto yiñ fi toj ak euh, euh, garde corps bañ fi kii rek lépp ngay fay yow. Sénégal daal tappale boo jógee dem ci beneen. Naby Vision. sonk danaa ne yow rapport dalaa dalaa jiiñ ngeen ne rapport amul ci moment boobu ay manifestation ñu taj fi oto ay nit gazé fi ay nit ñaata bakkan dee ci ngeen ne yéen dee yéen waa euh, euh, kii APR rapport amul nga toog fépp yow ne Mame Mbaye Niang su fekkee ni génn nañu benn rapport ngeen xam ni. rapport pour c'est vrai le rapport existe. Euh, il y a eu un rapport en janvier 2024 de la Cour des comptes. Je ne peux pas en parler parce que c'est confidentiel. Il y a eu un pré-rapport. pourtant ba ñuy wax ñëpp dañoo ne woon Sonko waxul dëgg de te Sonko ji ñu la sàcc de dalaa ne rapport dalaa jiiñ pour ñi xamul rapport su la jiiñee da ngay dem nga setali ji sa der nga dem foofu ñoom ñu xool la xool say mbir may wax nga naan rapport dalaa setal yow rapport bi amul woon léegi am na nga ne ñaar moo am kon daal yéen di ngeen di xoole ñu pompe dóor lacrymogène suñu askan wi di rey nit ñi boobu ñaari rapport am na ngeen ne yéen amul ah tey ngir dëgg na am na ba pare yaru gi pour lan ku nekk xam nga sa baay dama ne yaru gi pour lan euh, arrogance bi léegi dañ na léegi naal mag yi dem na moom waaw ngeen dañ dangaa dugg Cour des comptes noonu ba ñu ne ñu ne dañ laa seetaan man xaw ma sax ndax loolu dëgg la dañoo ne ci journal lañ ko def mais Cour des comptes su defee dara da day koy génne euh, da koy génne loolu ñu génnagul ba léegi moo tax ñu cee wax tey nag maa ngi dégg ñëpp di taal laay rapport bi setal na ko rapport bi setal na ko ñoom ñoo fi nekkoon ne rapport amul rapport amul Sonko li mu wax du dëgg tey rapport am na waaye ñii ay nit lañu wala ay mbaamu àll wala ay cëm xaw ma ñun lañu jàppee woon ay dessin animé waaye Sénégalais tamit li ñu ko teg rek mu tegoo ko kii ni moo ko jëppee kanamam gii mel ni euh, euh, xam ngeen euh, benn coppati yooyu nga xam ne danga ci daan gis suukar kanam gi noonu lay mel nduróog patu mburu bu ñu defar te laqawuñ ko nii ñàkk katu jom mag bi may wax mu naan sama der laay setal nga def ko ni euh, nga ne li nga gis ci journal yi nga ne yaakaar ni daa setal sa der yow sa der bi du setee foofu de déedéet yaag Sonko ci tribunal yi la woon tribunal ngay dem mu génne moom ay preuve am yow nga génne ay preuve comme que moom nee ngeen woon yorul rapport ngeen ne rapport amul benn rapport yow bu la bu la téye yow nañu yem ci loolu di ngeen dokk